la presse man suis Awacham, conseillère municipale au niveau de la mairie de Médina présidente commission communication du conseil municipal Je ma venue pour nous euh, euh, le point par rapport la situation bi am ci biir Médina euh, umpul kenn que évolution délibération Il fi jot a ben amu ci won antuwul won dafa mujjoon dem ba président euh, bind pour le Sénégal entier ben ordonnance pour dimbale commune yépp par rapport ak délibération yi def pour venir en aide euh, population yi concernant cette pandémie bi am ci jamono tay ñun ci gattal li ñu bëgg moy mbir mi leer mbir mi leer donc na bureau bi daje génne ponk yi concerné Covid 10 force Covid 19 matériel bi ñuy jënd pour population yi ak euh, ndimbal en nature en en secours en sous forme de secours lolo dañoo bëgg euh, bureau municipal bi waxtaan si tek ko ci anam yu leer bind papier en bonne et due forme mu yegg yegg population yi par rapport ak deuxième partie délibération bi li war a rejet kayit yépp loolu bu domaine il faut que le conseil municipal soit convoqué conseil bi délibérer pour ex pour euh, mën et virement de crédit pour loolu mën dem ci liggéeyu mairie bi par rapport ak tout ce qui reste moy école yek tabax yek yenen yi ti xew mais en ce qui concerne la pandémie il faut le bureau municipal et le bureau tout court sans extension salaamaaleykum membre presse bi man maa ngi Aram Diagne nek conseiller municipal ci mairie medina bëgg Je euh, tout rek ci sama collègue bi di Awa Thiam ànduñu ci formule bi nga xamante ni moo amoon ñu bind def recours yóbbu ko ci sous-préfet bu ñu ko yóbboo ci sous-préfet mu jox ñu dëkk parce que ñun dañoo ni waa Médina ñoo ko wotee ni danañ leen jox cent douze mille cent vingt millions la waxoon moom xaw ma sax lan moo ko indi léegi cent dix millions bi nga xamante ne joxe nañu cent vingt millions ñëpp d'accord nañ ci njox ko waa Médina ndax Médina moo ñu ñor.

te bi ñu gisee ni le bureau municipal moo war a gaaw ci affaire Covid bi bureau municipal est le maire et ses adjoints la moom na bi muy def convocation pour noonu bu bi pour bureau municipal dafa ne élargi au président de commission bi mu ne élargi au président de commission comme ñun suñu membres, yi nga xamante ne ñun dafa am lu ñuy bañ te bëggal ko Medina. ñu daal ne comme ñun ñii kat bari na ci ñun ñoo xam ne président de commission lañ nañ dem ca réunion ba ba ñu demee ñun am nañu fii benn adjoint au maire am nañ fi ay président de de de de commission yu bëri ñoo ñu dem bi nga xamante ne dem nañu ci mairie bi ñu empêché leen ne leen du ngeen dugg ci mairie bi bi loolu amee mu am fa coow yéen ñëpp nga fa woon Sénégal yi ñëpp xam nañu la fa xew. ñu fekk fa ay nervi fekk ñoo xam ne ñoo tëye bunt bu yore seen liste di liste ñi war a dugg ak ñi warul dugge te bu fekkee ne dafa jalgati ordonnance su Macky Sall bi nga xamante ni mooy le maire et ses adjoints mooy le bureau municipal ni na con na na vice na kii ñëw président commission yi président commission yëpp dañuy dem ndax noonu la ko bindee ci libellé ordonnance ci libellé convocation bi ñu ni leen du ngeen dugg te ñan ñoo leen wax du ngeen dugg ci maire bi ay nervi ay ñoo xam ne ñooy buntu. ñu tol na ñu tol na ñu tol na conseil municipal ñu la doo dugg ci mairie ñu ñëw boole lu ñu neex ak lu ñu naqari ñu violenté fa suñu benn camarade ñu violenté fa suñu conseil municipal ñan ñoo ko violenté ñoo xamante ne amuñu ci droit. ma ñëwee daal di dugg ci mairie bi dafa am ñu ma ne xaaral mais man ma ma dugg maa ngi jiitle woon ak góor gi Diop ma dugg xam nga ñaari porte moo fa am bi ma duggee ba ci biir mairie bi nag. bëgg dugg ci deuxième porte bi ñu ne ma du ngeen ne ñu si liste ci biir ne tur yi te en tant que présidente commission. parce que président commission yi la dafa adjoint au maire yi commission président commission yi sax ñun dañu Ablaye Martin ñëw na président commission yi ñëw comme sama frère bi ma y avait matoon nañ daal presque dix personnes mais ñëpp la ñu bloqué ne duñu dugg bi ñu ubbee bunt bi nag man jot naa duggal sama tànk taxaw ne man danaa dugg bi ma taxawee noonu nag mu am benn jeune bu ñuy wax euh, maax moo ñëw pel ma pour ma dégager wu bi ma pelee ma ñëwaat ma fexe ba taxawaat taxawaay bu dëgër ma taxawaat taxawaay bu dëgër bi ma taxawee nag ci la ñu woo benn jeune bu nekkoon ci mbaar mi ñu ne ko wuyul ci biir bi mu duggee ci biir daal bi mu génnee dafa ma xëcc rek buddi rek sànni foofu nag yàlla moo ma dimbali ndax su ma yeggoon suuf du baax mais heureusement yàlla suturaal na ma dimbali ma ba yegguma suuf am naa nag problème sama mbagg dem naa hôpital defar naa sama certificat médical def ñu def loo ma ay rajo ak yëpp defal nañ ma yëpp macha allah ba léegi nag maa ngi sama douleur maa ngi koy sentir ndànk ndànk mais mu ngi tane quand même. problème bi ñun xamuñu lan la. wóor na yàlla ba ñuy dem xalaatuñu woon man de jàllo xalaatuma ko woon ne dinañ ñëw ci maire bi ñuy interdit accès foofu ci biir maire bi xalaatuma ko woon vraiment xalaatuma ko woon. xalaatuma ko woon dëgg dëgg muy conseiller comme ñun ñu bokk benn liste taxaw ci. ñu falu mu nekk ci naka sa dul noonu ñun ñun masuñu ko critiquer ba un moment ñu ne ko dem doy na ñu war a ñëw ci mairie bi ñi ko ñi la fal nga ne duñ dugg ci biir mairie bi kooku man mënuma ko expliquer kenn comprendre ma ko daal bu ngeen ko comprendre aussi ma delloo leen question bi rek mais comprendre ma ko li ko waral daal vraiment ah comprendre ma ko xam naa nag sol na mbubb mu moomul ndax boo solee mbubb moo moomul da ngay doy waar bew na xëy na fuuy na ah doy na waar daal ñun tam comme ñun dañuy jaar si yoon dañu jaaraat ci yoon bindaat ñu nit recours mi ngi nii bi ñu ko bindoo bi ñu ko bindee bi ñu ko bindee recours baa ngi nii le collectif des des conseils bi ñu ko bindee jox ko jox ko jox sous-préfet mu xool xam ne ñii ñii kat ci dëgg lañu ne mu tontu ñu tontu bi boobu léegi nag ñi ngi xaar monsieur le maire pour mu ñëw woote bureau municipal bi nga xam ne moom la ak ses pour ñu voteel waa Médina li ñu soxla ndax waa Médina dañu soxla ndimbal li warul génn ci loxo kenn te xaalisu Médina nekk fii. man Adja Yacine Diagne laa tudd conseillère municipale ci Médina conseillère municipale la ville de Dakar ñu xamal monsieur le maire Bamba Fall ñun dañu àndoon ak moom ci list coalition Tahou Dakar 2014 Wa Médina ñu fal ñu fal Bamba nous sommes à égale dignité dans ce conseil municipal Nous sommes à égal dignité nous ko à respecter dañu ko à confiance dañu sommes a am idée de partage et de collaboration trois ans après il nous a tourné le dos il taxaway indi indiwaat un comportement indi arrogance indi incompétence indi nébuleuse de gestion il faut que ça s'arrête Le bi Sénégal fa fait ci aduna bi dox et les collectivités territoriales ñuy communes de plein exercice il y a des choses qui xamné ne ça ne peut plus marcher il y a un éveil citoyen il y a une conscience citoyenne bu sur les 19 communes d'arrondissement, c'est la mairie de la Médina donc ngay gis ñu statuer gum ci Covid 19 bi dama ne population médinoise la population Sénégal nous avons des ñun ay doomu Médina lañu fekk fi baax bëgg lu baax bëgg servir la Médina et non se servir de la Médina nous voulons servir la Médina et non se servir de la Médina il n'est plus permis que nous ayons un maire pour gérer la commune avec ses désidérats. ses désirs simples ça ne peut pas marcher ça ne peut pas prospérer il faut qu'il arrête Bamba Fall sommes ñu mêmes. nous sommes ses conseillers nous sommes ses collaborateurs nous sommes à égale dignité dans ce conseil municipal tey dañu waroon def le bilan de Taxawu Dakar ci liste ce bois pour le kenn de fi kenn moom mu ñu ñu muy néewal doole ñun ñoo ko fal bu baax kon dafa trahir le collectif faut trahir le conseil municipal Nous avons une vision une idée am ay principe am ay valeur nous moo ñu wutaleeg moom Bamba Fall la transparence Bamba Fall il n'est pas administratif Il il dans la gestion de la gouvernance locale dans nos différentes communes lii ñuy wax ni ñok wa Médina wa Médina nañ dégg bu baax Medina. rek ñu ñor Médina lañ fekk fi baax am fi di Médina nous sëkk suñu jëf mënuñu mënuñu xokatal li koy wax devant la presse qu'il arrête ses intimidations qu'il arrête ses menaces on en a assez Té dëkk bi dafa am loi am ay kilifa am ay autorité hiérarchique et administrative, nañu dégg ce cri de cœur il ne sera plus permis Ben conseil ou conseiller du dugg ci mairie Médina nous allons prendre toutes nos dispositions nécessaires et rigoureuses pour faire face à ça. mbooloo mi maa ziar man la Pape Jean Ndiaye conseil municipal Bokti, ci collectif des élus et de valeur de la Médina Je ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax lu ñu Médina Bamba lu fu mënta xew ci Médina jublang la lu mu mënta tey ji Médina demee tey ji ko gore ji la dégg ngeen ko ci réseaux sociaux yi fu nekk mi ngi tourné nit ñi ay sàcc lañu ñii ay góor jigéen lañu moom du kilifa du leader du responsable dafa war a xam ne c'est un maire maire kilifa la c'est le premier magistrat de cette commune ay kilifa ñoo fi nekk ay responsable tey jii amet Diène fu mu tëdd yaramam daw na ndax bu fekkoonte ne tey jii jàpp na ne xale bi mu formé mooy xëy tey jii ba nekk maire di def nii di saaga waa Médina yi kon bu dem doon tey ji du ko dugal fum fum fum mu bokk war na biram sa sub bop ba deñ muy koy ñaanal fum mu nekk fu mu tëdd gënal ko fi mu yalla yàlla su borom xaaral ci aljina gën kawé warna biram sa sum ndax tey ji bu toogee fi tey ji biram sa sum le remplacer ba nekk sa le maire de la medina en 2000 mille deux mille euh, euh, gestion 2009 2014 yegli mandam ba ñëwaat 2014 ba tey ji nekk tey ji le maire de la medina te ñëpp xam nañu fan la mujjé ak biram sa sum

ça veut dire que yow da nga jangul wala bok même bu fekkee mëno jang mais am nga ay professeurs yu la jege am nga ay borom xam-xam yu la jàng yu mëna lire mais ñun liiral ne la li la yoon wax ordonnance bi président bin, dafa Nous, ñun ba ñëkke défé demande d'annulation, virement de crédit bi ak autorisation spéciale mais sous préfet dafa ñëw annulé ko parce que effectivement dafa am fu mu tënku dafa am ay article yo xam ñoko dakh mu encore défat la même chose c'est écrit sur les 533 communes du Sénégal ñëpp ils ont appliqué l'ordonnance De go ben coow.

Nous l'avons accompagné. accompagner jàpp ba lii nous l'avons dit, yow adjoint maire empêcher pour nous dugg ci conseil municipal ci bureau municipal mais nous empêcher un adjoint maire mu dugg ci mairie édifice mairie du pour un certain temps c'est fini pour lui Bam Fall pour la Médina c'est fini pour lui taxaw ñun et toute la population de la Médina est par force parce que nous dafa kon ci firnde lañ ko fi jëlee li mu bëgg nag mooy ñu xeex jàkkaarloo ak moom dañu war ne ñoo ko dàkk xeex dëgg gën ko gën ko gën ko xam ni ñuy xeexee ndax moom day jéem jéem xeex mu xeex amul fi tapet la moom xam na bu baax lu ñu koy wax ñoo ko ëpp fit ñoo ko ëpp paxe yooyu muy def affaire caaxaan la rek te caaxaan jeex na tey ji ay jigéen ak góor ñoo taxaw tey ji ne par day génn à la Médina day génn day jeex bu fekkee mënul jàng xam nañu ne mënul jàng mais ay conseils ñëw toog moom jàngal ko ne ko lii ak waaye lépp nga bëgg def forcé, mais une ordonnance da nga koy lire lañ la tere yow loolu nga defaat encore une fois une deuxième fois ñu rejeté ko encore une deuxième fois léegi xam nga lu muy wund le conseil municipal ñun nous liggéey ensemble ak moom fu ñu mënti jëm suba tamit leneen def parce que jalgati la xam tey jii dem leen à la rue 25 ab la toj def ko magasin ab jàkk fu ay julli di jullee ci weeru koor di ñaan yàlla suñu ndax ba ba jàkk ji nekk waa marché bi dañu ne alhamdulilah rabbil alamin au moins sax lii dañuy permettre sunu euh, jàkk ji jege sunu ay cantine daf ko toj def ko ay cantine édifice public yi nekk à la Médina ñu jël ko jox ko aux ASC mu jël toj ko def ko ay cantine ay këri jàmbur fii nga xam ne foofu nii dafay toog di fa féexal def ay jardin mu toj ko def ko ay cantine waaye lii jusqu'à quand Bamba Fall c'est fini pour lui la medina nous appartient ñun ñoo ko moom ñun fii lañ juddoo moom juddoowul fii amu fi nijaay amu fi maam